rek nga doon càmm. ayca Aziz bismillah salaamaaleykum rahmatullah ñi ngi nuyu suñu auditeur euh, abu l'antenne yëpp di nuyu comme ni ko Aziz waxee suñu gan bi ñu nekkal tey Mamadou Maïga euh, gan bu gan bu am solo la ñu am tey macha allah gan boo xamante ne ne kenn dootu ko présenté si musique sénégalaise gan boo xamante ne ne euh, expérience am liggéeyam ak jaar-jaaram yëpp c'est lépp jàngat la donc euh, nit bu am solo tey ci ci suñu ci suñu plateau la ñu am Mamadou Mayga ñu ngi lay dalal ak càmm <laughs> donc. Euh, maa ngi jégalu bu baax euh, parce que Aziz mi ngi may xëyloo ba ba léegi maa ngi chance affaire bi di reetaan mais mais mais moom moom li ñuy wax rek looy wax rek na doon jàmm. Euh, donc euh, yàlla ñu yàlla jàppale di la nuyu Rose. di am mbégte trop tamit gis sama frère sama ko ju baax Aziz. Mhm. sincèrement ma kontaan lool ci gise bi donc di leen nuyu di nuyu sénégalais yi di nuyu diaspora bi di leen baal <laughs> donc ah c'est euh, vrai que méga bu ñu xamante depuis temps Moussa Ngom la ak super jamono temps matinée cosaani ak super jamono toog je te jure gis <laughs> bi ma bi ma waxee bi ma bi ma envoyé photo bi laa dama la gis mais kontaan benn kontaan boo xam ne ma ne mais mais sa rakk ji anamoo pour te dire que nit ku baax la euh, donc maa ngi lay nuyu Aziz bu baax baax Rose maa ngi lay nuyu ñu ngi lay fay bu baax a baax ñu ngi lay fay di la dalal ak jàmm <laughs> ah, euh, nga ñëw ak sa Euh, album bu am solo. bu mhm. tudd expérience. expérience boobu noonu nekk ci suñu thème bi nga xamante ne mhm. moom la ñuy waxtaanee mhm. depuis euh, lundi dernier. ñu bëggoon euh, nga wax ñu depuis kañ nga nekk dakaar déjà. Oh, waaw man que maintenant tu vis plus nekkatuloo Dakar léegi. maa ngi maa ngi Italie ça fait 16 ans. donc du tee nag damay ñëw chaque année ma ñëw. des fois ma ñëw kenn du ci xam dara des fois ma ñëw làqatu sama biir euh, njaboot. Mhm. jàpp sama ñaamoo ñibbi jot ma ñibbi. Mhm. Euh, cette fois ci nag euh, dama décidé woon na def benn album te album am boo koy def comme ñun ni ko doon defee il faut mu jël temps. Mhm. donc ma depuis octobre laa fi nekk. Euh, dama ñëw màggali rek jóge màggal Touba commencé ñëw ñibbi si Dakar commencé répétition yi mag euh, Papis Konaté euh, ñu répété ba pare def ay atelier après musiciens yi ñëw donc studio presque def naa fay deux mois. donc album bi fii nga ko defaree. bien sûr fii fii fii ci Papis Konaté. studio Papis Konaté mais benn studio bu dof benn. ah <laughs> oui benn studio ah non pro le pro le. Mhm. donc fa laa defee album bi ak ñoom Dembel. Dembel Mojé basse euh, Boy Alioune Seck percussion donc gis nga tur yaa ngi noonu ñoom ñoom Jules Diop batterie mm. euh, Yatma Tama Boy Amady euh, guitare mm-hmm. donc rôle rôle rôle de clavier yi ñu waroon def Papis moo fa jaar xam mm-hmm. nga moom it ndaanaan la ci affaire yi mën nga jouer rôle dix personnes bi mm-hmm. benn am na soxna su ci kër aussi bu tudd Fatou je crois waaw am na ci morceau yu mu kër Mhm. voilà donc euh, foofu la ñu liggéey album bi. Mhm. Euh, merci donc foofu la ñu ko liggéey euh, di ci sant yàlla bu baax nag ñi nga xam ne bii nag ñoom ñoo yóbbu album bi ci kawe bi mu kawee parce que sincèrement liggéey bu am solo lañ ci liggéey yàlla boole ma ak suma benn xarit suma frère suma rakk bu baax. Mhm. muy le DG de la LONASE ñu koy wax Lat Diop. Euh, ndeysaan yàlla boole ak Serigne Touba. Euh, wax dëgg yàlla ak ndimbalam ak euh, équipe am ñoom ñoo jàpp ci affaire yi ba tax vraiment album bi bi mu génnee def benn def liggéeyam. waaw waaw expérience bi nag ñu di mën nañ ci waxtaan ci loo ma ci laaj rek. parce que bon donc ce en <laughs> fait c'est que si je comprends bien album bi tu def nga ko ci deux mois. en à peu près c'est ça mais en fait lu tax album bi certainement mu mun a xëy na gaawee noonu turam tur tur bi xëy na moo tax c'est c'est-à-dire album bi expérience la tudd Hmm. expérience bi nga am ci musique hmm. ñi ngay liggéeyal aussi am ko parce que hmm. ku ci mel ni ay Dembel ak Papis Konaté macha allah ñëpp xam nañ seen liggéey si musique sénégalaise donc ñoom tamit seen expérience ak seen professionnalisme am na leen ba si ñu mun a def un album parce que un album ça se prépare ah, des des des années mais loolu noonu mun leen permettre ngeen mun ko def en deux mois titre album yi nga xamante ne ne moo ko moo ko tënk ñu tuddee ko expérience expérience. Euh, mm. album bi. Mm. Euh, da nga wax benn point bu ma neex euh, ci cadre parce que man j'aime bien nit ku xam. pas xam lépp mais nga xam dara. Mm-hmm. ci cadre préparation wu album. effectivement mën nga préparer album pour deux ans ba dix ans sax ba la neexee. Mm-hmm. mais dafay fekk possibilité yëpp nekk fi nag. tout nga day fekk vraiment possibilité yi taxaw. mu wóor na ni da ngay jël sa temps. waaw nga fay musiciens yi fay la parce que loo ciy def da ngay fay. moyens yi. waaw il faut des mois deux mois déjà rek bëri du tuutiwul quoi parce que bon man souvent ni may liggéeye euh, damay defar suma ay morceaux defar mélodie yi defar harmonie yi parce que fi ma jaar la. Mhm. waaw man dama jaar ci eh, ci groupe boo xam ne wax dëgg yàlla yàlla may na ma fa xam-xam bu rëy rëy muy le super jamono. Mhm. Euh, ma leen di nuyu di nuyu Grand Pen di nuyu Lamine Faye bi nga xam ne bii xam-xam bi nga xam ne bii moom laa am di ko véhiculer di ci di ci am yenn xéewal yi ci musique euh, yàlla ak moom Lamine parce que moom ma doon tëj ay cosaan euh, de midi ba dix heures ci guddi may way rek <laughs> donc donc tey jii fruit yi euh, moom moo andi moo mooy xam-xam bi mhm. waaw donc dama sonnoon naa ci trop nag ñoom pen jaar nañ ci pen ak Adama Faye mhm. euh, Adama da ko doon tëj moom it mhm. di ko di ko wayloo rek xam nga yooyu noonu moom moo ñu indil expérience boobu noonu moom moo tax ñu xam musique xam euh, parce que doo ñëw rek andi ay paroles da ngay ñëw andi ay paroles andi ay mélodie andi ay affaire yoo xam ne dañ koy miime ci sa gémmiñ instrumentiste jël ko Mm-hmm. relever ko ba pare def dolli ci yi mu ci dolli. Mm-hmm. donc loolu moom moo ñu gën a jox facilité euh, liggéey bi ma liggéey ak Paris euh, moo tax euh, mais sinon deux mois quand même daara. deux mois tuutiwul quoi deux mois mais comme ni ko waxee su ma sañoon mm-hmm. jël sa temps ma ne ko jël sa temps yëpp. voilà donc expérience bi nga xamante ne ni moom nga wax ne que moom nga am ba am. mën a def album en deux mois. Ah. donte préparé nga ko quand même pendant. Bien des sûr. années ah. est-ce que mën nga ñu jox ay détails ci expérience yooyu noonu. Ah. yi nga xamante ne moo indi moo sabab tuddee album bi mm. expérience. waaw waaw moom moom laa la wax léegi c'est-à-dire euh, gis nga. pourquoi le le le le le, le titre. bi expérience xam nga boo xoolee. boo xoolee. Mm, dafa am ku nekk ci ligne bi déjà. 628 98 waaw waaw. waaye man da ngeen di invité koo xam ni sama dama kuy damay toog di ko jàmbat guddeeg bëccëg. <laughs> ndeysaan. asalaamaaleykum waaw Mayga. waaw grand. Mayga ana Titi. Titi mi ngi Italie mi ngi Italie. waaw ana ana ana xaj ba ana xaj ba. waaw xaj ndeysaan mujj na làqu nag. Oh, ah, ndeysaan waay ah, on a tout fait pour sauver ko xel mi day nekk ci yow tellement dëgg la grand dëgg la ça va bien maa ngi dëkk fii Fann ok ñu dëgg eh, dëgg la wax nga dëgg Fann ok waaw grand cher grand cher wax nga dëgg kay na nga def grand ça va nekk ku baax waaye Mayga bien amuloo benn <laughs> problème. jërëjëf jërëjëf grand ko bëgg toujours man dama lay bàyyi ma naan waaye Mayga Mayga daal dama koy ndam. moo tax ba déggee nga ne déggee ñëw làqu. may sant yàlla rek sant yàlla grand kontaan naa kontaan naa. merci beaucoup waaw dama ne Mayga yàlla na yàlla dolli sant. man comme j'ai entendu ta voix. et puis mhm. dégg ñu invité la foofu. waay ba pare ma daan ñëw ñuy paal depuis Seyl loolu yàgg na. yàgg na trop vraiment li nga wax ni kay yàgg na. waaw nga nekk jamono non yàgg na yàgg na ba pare yàlla def. <laughs> xam nga ba léegi ba léegi gis nga vraiment daal ci vraiment content yàlla na gën a yàlla jàppale bu baax amiin amiin grand frère kontaan naa yàlla lafal la cat waay <laughs> amiin amiin xam naa nag bu ma amoon li ma doon gën a nag ma ne foog ñu jàkkaarloo mais xam naa ni incha allah waaw yàlla baax na ah yàlla baax na yàlla moom ay vraiment daal avant ngay retourné waat daal Italie daal bu <laughs> ci kàttanu ah. yàlla incha allah waaw ah, jaajëf Fatou Mbengue ci kàttanu yàlla ñu faire merci beaucoup. merci ok merci ciao bonne journée ciao. jërëjëf euh, euh, ñu ngi leen di remercier si si participation bi donc may je voulais qu'on de. de cette expérience waaw le nom euh, expérience. bi nga ne moom nga tuddee album bi. waaw xam nga boo xoolee hmm, expérience bi sax morceau bu tudd expérience amu ci. tout à fait donc dama ne dama toog xalaat ko réfléchir ci. Mhm. ak suma xarit laat. ak Papis Konaté euh, ak Seydou ñuy chance quoi ban tour la ñu war a tuddee affaire bi bon ma gis euh, musique bi fi mu toll léegi euh, depuis des années ma gis vraiment feebar bi mu feebar feebar bu doy waar suñu musique bi te comme des fois wax dëgg yàlla da ngay ñëw ñu invité le rajo wala ngay ñu invité le télé toujours dañ lay wax la même chose waaw musique bi lii nangam ak nangam dugg na fii génn na fii musique bi daal léegi xam nga tey wax dëgg yàlla dëgg la. musique bi nu mu amee woon personnalité autant. amoon classe. Mm-hmm. Euh, vraiment nekkoon benn métier bu nekk benn métier bu noble ah. du ma wax nekkoon. musique dafa noble musique du yëfu du yëfu n'importe quoi quoi mm-hmm. c'est du travail mm-hmm. euh, mën nga ci gagner sa vie euh, gis nañ ko ci àddina bi ah ñoo xam ne musique ñoo nekk ñoo tax ñoo tax ñu nekk milliardaire wala yooyu yooyu mais musique bi dafa dem ba benn moment boo xam ne sincèrement dootoo xamati lan la tellement que dafa feebar te wax dëgg yàlla euh, man maa ngi encouragé jeunesse bi ah ñuy góorgóorlu quand même parce que c'est vrai que euh, y plus de cent mille groupes ak yu kenn xamul yooyu mm-hmm. mais quand même man déjà rek comme ñi ngi def musique rien que bu fekkee baax na wala des na mais man moo ma gënal kiy def lu bon mm-hmm. waaw c'est-à-dire dem di loraate mm-hmm. sincèrement quoi mais nag quand même euh, ñu def attention parce que nag musique bi mi ngi gën di nelaw cest dire que bi mi ngi gën di nelaw bon ma ne nag man sama message cette fois-ci. Euh, ma ko wax ma wax ko laat ma ne ko sama message daal cette fois-ci xam la. ma ne ko daal jëm tuddee affaire bi expérience. xëy na mu nekk benn genre message boo xam ne. au moins ñu dégluwaat. ma nga bëgg ñu gën a dégluwaat quoi sa à dire déglu grand yi. déglu ñun naka la ñuy liggéeyee. système bi ñuy liggéeyee. waaw parce que tamit deux mois yooyu ma la limal noonu mënoon naa ñëw studio benn jour ah def ay vingt morceaux. Mm-hmm. mais ku ma mën a dara. <laughs> booy di dem studio dugal def seen ay cent morceaux dugal ci YouTube bi yooyu. mais ku leen mënal dara kenn mënul leen dara. xam nga donc affaire bi jàppalante rek la. jéem a nangu ne fe musique bi feebar na nañu dimbalante jéem a dellu ginnaaw parce que boo xamul fi nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon. Mhm. c'est très important musique sénégalaise bi mais ñoo fi gën a neex musique ci àddina bi. Mhm. mais lan moo lan moo feebar musique bi. lan parce que euh, depuis tout à l'heure euh, j'ai l'impression que euh, yaa ngi def un peu attention dans ta communication et tout. Oh. Euh, parlant de musique bi feebar na en parlant de bon journalistes yi euh, dañ lay inviter toujours les mêmes choses et tout ça. Tout, mais bien sûr Aziz revient et tout ça. bon je sais que j'ai de l'expérience yàgg nga. Ah, ah. et puis yàgg nañ la interviewer. tout cela. Euh, est-ce que du une saturation euh, euh, à votre niveau le fait que euh, nit yi di la poser toujours la même question mooy une une saturation à tel point que maintenant tu tu tu es devenu euh, beaucoup plus naka la dama xaw a maax ah, dama xaw a maax voilà du question mais dama xaw a maax tuuti. Mhm. looloo tax ma ne bi yoon ay wax duma ci fekk. naa naa génn benn affaire boo yiy déglu. ñëpp déglu quoi. waaw parce que xam naa ne euh, ci kàttanu yàlla boo dégloo di nga xam ne ah moi je veux je veux entendre ça ah finalement. xam nga nu ñu déglu quoi. comprendre nga mais du question wu man du ma hésité ci dara Aziz parce que sincèrement affaire bi dëgg la aussi parce que da ngay ñëw euh, yàlla xam na ko saa bu ma ñëwee Sénégal bu ñu ma waree woo benn interview c'est toujours les mêmes questions. waaw feebar bi li ko andi ñëpp xam nañ ko benn moment musique bi doxatul benn moment musique bi doxatul euh, dañoo jékki-jékki rek benn affaire génn bam affaire boobu génn gars yi mel ni ñu je ne pas. mais est-ce que euh, aussi euh, médias yi ñoo bare léegi. réseaux ah, sociaux yi bare mais mais moo tax. am difficulté am na si lu médias <laughs> médias yi nu ñu bëree du ndànk. Hmm. technologie bi liggéey na loo xam ne lii li ci positif. xam nañ ko li ci négatif xam nañ ko mais côté bu négatif bi gars yi liñ ci utiliser c'est trop moom mooy yu bëri yi ngay gis nii saturation bu metti bi ci côté ku jóg ubbi rajo ku jóg dugg ubbi sa benn affaire ci ci ci ci ci internet bi boo bëggee defar sa benn studio de musique benn affaire bu ndaw jël kii teg sa computer kii yooyu donc après affaire bi mënoo leen ba hmm. bu fekkoon ne gouvernement bi daf ci jëloon ay matuwaay ne suñu musique bi ku ñu ko bëgg a yàqal xam nga comme leneen ak loo xam ne dañuy naan lii dañ koy tere. Hmm. bu ko boo ko defee bu ñu la jàppee yoon mën yoon dal sa kaw. boobu dina doy waar moom ci musique bi. <laughs> non pour te dire quoi bi moom. mais mais mais ah. lenn moo mën a am. lenn moo mun a am. lenn laa mën a mooy xanaa média yi te tout le temps dama koy wax ma ne il faut que média bu nekk ça veut dire que muy rajo muy tele hmm. il faut que am benn euh, service buy euh, mën a saytu musique ñuy teg. ak euh, yu ñuy censuré euh, parce que bon en Europe ça existe mais Sénégal dama xamul dafa judduwaale ak loolu tu vois euh, boo xam ne du ñu saytu musique yi du ñu contrôler ah, musique yi jàll animateurs yi lu leen neex nañuy teg lu leen neex nañuy ah, diffuser tout ça lu leen neex la ñuy wax lu leen neex nañuy wax en plus voilà <laughs> donc en fait c'est ce qui vous aussi quoi ba pare am na loo fàtte Aziz. Mhm. lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy wax ba pare il faut aussi tamit ci ci il faut dafa ñoo xam ne dañuy laaj dañuy laaj weccet. ah mais boo leen jox weccet duñ la ah. teg. waaw yàgg na waaw mais c'est grave. Mm, mm. mais vraiment. doy na waar <laughs> <laughs> doy na waar ñu jël ku nekk si ligne bi. mais mba mbaa indaale nga euh, wécc gu bëri rek. <laughs> non non pour wax la rek. ak yi coupé na salaamaaleykum dem na mais may nga may nga pour pour euh, ñu ñu ñu ñu ñu nekk si ci si sujet bi. Mm-hmm. Euh, j'ai voulu bien sûr qu'on parle de li nga xamante ne ne moo la indi Sénégal. Oh. parce que li lay indi Sénégal dootul rek musique. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne mm-hmm. may nga léegi yeneen i activités. activité mu ngi koy am ci biir Sénégal uh-huh, njaay bi uh-huh, nga uh-huh. xamante ne ne Euh, suñu Sénégal la. Mhm. sama Sénégal la sa Sénégal la ah, Sénégalu Aziz la ak auditeurs yi. te ku ci nekk xam na. Mhm. Euh, problème yi nga xamante ne ne euh, ñu ngi koy dund. léegi ak suñu jeunesse yi. Ah, mhm. problème yu doy yu ñuy dund ak suñu jeunesse yi. ma looloo indi aussi tey ji bokk na ci lu tax ñu ma ma ma oh. sabab lu vraiment ñu bokk plateau bi ñu mun ci waxtaan. xool nan la ñuy def ba mun a prévenir. ñi nga xamante ne ne euh, ñu ngi ci yoon wala boog bëgg a nekk ci yoonu juba jubadi euh, ñi nga xamante ne ñu ngi ci instant bii nii si problème yi nga xamante ne ne mooy addiction mm. nan la ñuy def ba aider leen parce que je sais que ne am nga ay yu bëri yooyu def pour mm. aider ay mm. jeunes yoo xamante ne tey ñuy nekk ci ay addiction waaw lu am solo nga ma laaj nii mm-hmm. euh, loo xam ne di wax dëgg yàlla dama ne woon sax benn moment Hmm, sincèrement dootuma ci sax wax parce que xam nga nga. ah déet bul wax loolu. non maa ngi ñëw ah hmm. parce que euh, da di koo xam ne ne porteur de voix nga. waaw waaw euh, da nga sax sama lanc nii. Ah, euh, maa ngi ñëw <laughs> maa ngi ñëw xam nga xam nga woykat dafa am muy waxee noo xam ne boo ko dégloo rek. ok après dina dinaa ñëw parce que c'est sûr que du ma noppi. Hmm. c'est sûr que je vais continuer de combattre yi nga xam ne ñoo gën a difficile. fii suñu Afrique bi nga xam ne dañoo néew doole euh, amuñu yenn possibilité yi mm-hmm. euh, xam nga Aziz euh, il est tellement pro ba nga xam ne mm-hmm. fi muy j'aime bien boo gisee ma ma ba léegi boobu ba léegi ma koy xalaat yàlla xam na ko parce que dafa dafa po la quoi c'est-à-dire moom dafa galéré ci xam-xam bi mu am nii. man man j'adore di wax ak moom waaw waaw voilà. <laughs> donc yi muy yi muy yi muy génn nii. Mm-hmm. mais mais c'est important. Mm-hmm. c'est c'est c'est important. waaw waaw man loolu tax mu neex ma. Mm-hmm. waaw sincèrement <laughs> donc <laughs> yéen artistes yi di tiit. parce que. ah pour ñëw ci yow y' a deux y' a y' boo xam ne bu ma ne man su su ma yow soo ba invité la ba première fois bi may invité bi may nee dama lay euh, invité ci rajo mu ne ma euh, nelawul pendant deux jours balaa mu ñëw mu <laughs> ne xam na lu fi fekk quoi. xam nga ne pro nga fi pro la fi fekk ba pare ku am dal xam nga nit boo amee dal mm-hmm. nekk mm-hmm. professionnel. mais toujours say laaj dafay diis. Euh, ma ma man yooyu ma neex. man yooyu ma neex quoi parce que am na yoo xam ne niveau boobu la ñuy dund ko waaw sant yàlla donc sant yàlla toujours rek delloo lu ci ñu ko encore. te xam naa ne Rose mi nga nekkal aussi tamit ndaanaan la waaw parce que wax dëgg yàlla nit ku yaru la ku baax la. Euh, point bi ñu toll woon mooy. Euh, pour pour ñu xool nan la def. voilà waaw gis nga euh, euh, Maïga li may wax tout le temps à vous mhm. euh, waxtaan la mhm, mhm, waxtaan la waxtaanu les maux de la société yi nga xamante ne ne problème yi nga xamante ne fii waxtaan nañ fi waxtaanu école yi nga xamante ne ne ñu doon fay loo xale yi seen trois mois yi waxtaan nañ fi affaire immigration clandestine oh. ba invité fi ay uh-huh. ñoo xamante ne ne di ñooy def tentative plusieurs fois jël kii bi am nañ fi <laughs> ay invité ko xam ne fois def na ko dem jéem a dem ñëwaat. Euh, ma koy nuyu waale Baye Fall. Mhm. de invité nañ fii euh, ñoo xamante ne ne di ñuy waxtaan waxtaanu euh, éducation waxtaanu santé waxtaanu lu mu ti doon affaire plan Sésame. def mhm. nañ ko fi mhm. thème. donc li may wax rek man li ma intéressé réellement je pense que loolu noonu dama ci fekk si Aziz bi nga xamante ne tey moom mooy sama sama sama mag ci ci ci mbir mi mooy waxtaanee loo xamante ne dinañ ci mun jël solution. buñ ci mënul am solution wit dinañ ci mun a am jàngat bi ñuy mun a permettre ñu am. am tuuti marge. par uh-huh. rapport ak li nga xamante ne ni moom la ñuy dund. ci uh-huh. suñu moo yi su suñu uh-huh. problème yi ñu am. des problèmes y en a plein. y en ci àdduna bi y en Euh, euh, semaine passé on parlait de Covid bi nan la ñu mën a def pour jéem a gën a defaat attention. Ah, ah. par rapport ak euh, propagation bi nga xamante ne mu ngi am. Ah, donc comme je dise semaine bii nii on a on a parlé de des. suñu xale yi ak addiction yi nga xamante ne ñu ngi koy am. Mm-hmm. addiction ci ci alcool. Mm-hmm. addiction ci drogue yi. Mm-hmm. addiction ci am na ku ko wax keroog si benn auditeur mu ne si jeux yi. effectivement il y a de jeune yoo xamante ne ne dañoo am addiction si jeune. tey duñ fi nekk di wax may nga fii la jaar def na nii def na na li parce que loolu c'est pas le plus important li gën a am solo. mooy tey liggéey bi nga xamante ne ne. may Maïga mu ngi koy def. pour dimbale ay xale. ay nit pour ñu génn. ci lëndëm dugg ci leer. Uh-huh. loolu laa bëgg tey jii nga ñëw nga apporter ñu si sa sa sa uh-huh. contribution par uh-huh. rapport ak loolu. ok waaw léegi euh, comme li ma wax sànq boo gisee ma ne dafa ma ne dootuma wax. Mhm. parce que il faut ma commencer foofu. Mhm. Mm, euh, parce que je crois que euh, dañu war a yemale lépp parce que lépp lu douleur douleur douleur la métit métit la quoi. muy lu jëm ci cancer muy di jëm ci sida muy di jëm ci sibiru yi euh, ba ci corona bi nga xam ne moom lañu ñu mujjee vivre mais toujours dañuy tëb ce ce ce problème là nga xam ne moo pour man dara gënu ko sérieux mm-hmm. cest à mooy xale yi nga xam ne bi ñu ngi ci biir euh, cinébar bi mm-hmm. waaw vraiment di ci def euh, yu doy waar yoo xam ne. Mm-hmm. saa bu ma ñëw Sénégal laaj ci ñoom kii dee na kii. wallaay mujj na na kii ay dee yoo xam ni vraiment dafay dee yu doy waar. Mhm. ay dee yu mhm. euh, donc man euh, suma projet boobu ma amoon ba léegi bàyyiwuma ko parce que du ko mos a baax parce que loolu yàlla moo ko def ci man. Mhm. man fii gisuma fi ban Massamba Ndiaye la ñu war a mën ne rek euh, duñ la doon ñaan tey jii tey jii le ministre de la santé yàgg nañ man pour man jaay doon nañ ma dégg je ne sais pas mais yàgg naa waxtaanee affaire boobu dama loolu taxoon benn moment ma ne bay attends xaaral ma dox sama ay muraada <laughs> comprendre nga parce que benn moment dama ne mais cas yu sérieux yu mel nii mais gars yi war nañ ñu mën a dégg quoi mhm. mais mais ñu génne ay solution génne ay possibilité mhm. mais mais mais bi ngay gis nii si mais euh, li li mu bëgg li mu bëgg def bu ñu ko joxoon possibilité mais mhm. il va le faire parce que man xam naa ni mën na liggéey bi tout à pour pour pour ces toxiques tout à je sais que mën na leen dimbali. Idrissa c'est vrai que moom moo nekk psychiatre te ñëpp moom la ñu gën a miin keroog. Euh, maa ngi déggante mooy dem naa fa gis naa ni ñuy liggéeyee xam nga liggéey bi nice na mais vraiment tant que amuñu lu ñu internet ces ces ces gosses là. c'est ça. ah mais te pourtant foofu noonu y a l'espace. am na espace am boo xam ne bii bu ñu fa defee même bu ñu fa defee vingt chambres yaa ñoo xam même dix chambres sax. Mhm. pour le moment mais nañ commencé bu ñu commencé ci ñaar sax baax na. mais en tant qu'ambassadeur est-ce que xalaat nga par exemple jéem a lijjanti ay fonds à l'extérieur fii nga nekk euh, tout cela pour euh, euh, indi ko fii Sénégal est-ce que discuter nga ak état bi pour ñu accompagner la et tout cela. alors déjà rek li ma am lu jafe la am yàlla teel ma koo jox muy la communauté Papa Giovanni en Italie ñooñu déjà dama bokk ci ñoom. dañ ma ne ma bés bu yàlla defee vraiment parce que am na dëkk yoo xam ne am nañ ko am na ñoo xam ne ay étau ay ci yoo xam ne du seen sax rôle. ñam ñoo mhm. ñafee dugg ci affaire yooyu fexe ba tawat kii su dee ko centre nangam étau wala centre nangam moo xam. Mhm. te pourtant loolu du seen zone. Mhm. ñoom suñu dund affaire yooyu. mais dafa am solo mu wóor ne nii au lieu ñuy tudd chaque fois sida nangam cancer kii kii mais nañ ci boole loolu. mais loolu noonu ça ravage et puis ni muy reyee dafa ñaaw ni mu tuuti tuutilee dafa ñaaw ni mu lay toroxalee dafa ñaaw mais tu tu du n'importe quoi. ak yeneen conséquences yi conséquences ak euh, euh, agressivité bi nga xamante ne aussi gis nañ ko ci. foofu lay waxee donc mhm. problème bi mooy que oh suñu kilifa yi vraiment dégg affaire bi message bi ne attends léegi nag wax dëgg yàlla jot na euh, ñu ñu ñu taxaw nag seet yan possibilité la ñuy def. mais possibilité yooyu bu ñu ñëwee ne ma may nga vraiment yàggoon nañu dégg say projet yeeg yooyu mais on ne prêt vraiment pour euh, ñu ñu jàpp ci. Mm-hmm. parce que man may nga mënuma projet yi mënuma ko defar man kenn. ah mais fii gars yi boo leen xaaree duñ duñ la fekk si. Eh, eh, ci obligé ngay ta fëgg ci bunt yi ba eh, sonn. mais c'est pas normal nag. waaw c'est bon mais c'est comme ça que ah, il faut que ngay dem euh, di fëgg ci bunt yi di fëgg ci bunt yi di fëgg ci bunt yi ba euh, bu ñu sonnee nañu doon di la ubbil. parce que euh, fii nit yi nu ñuy réagir bon nos politiques. nu ñuy réagir ça veut dire que bon tant qu'il y pas de réaction bon ñoom. Ah, mooy loolu c'est peut-être que c'est pas important or que ça fait des ravages et ça tue euh, c'est et puis euh, am na ñoo xam ne ñu ngi ciy jàpp ñu ñu def seen euh, lu ñu mën mais duñ leen sóoraale sax duñ leen bàyyi xel c'est-à-dire que il faudrait que yow yaa war a positionner wu en tant que ambassadeur ah ba pare ngay dem di fëgg ci bunt yi fëgg ci buntu yi gars yi ubbi buntu yi nga mun a dugg nga mën a euh, implanter loo xam ne ne vraiment bëgg nga ko pour jàppale jeune sénégalais yi quoi parce que on en a besoin ku mel ni man ku mel ni keneen ak keneen keneen ku nekk jouer rôle am pour que ñu mën a jàppale jeunes yi quoi parce que suñ ko deful rek je pense que du du du.

projet parce que à ce que j'ai compris da indi woon projet. boo xamante ne ne mais c'est simple affaire bu simple la. Mhm. affaire bu simple la boo xam ne bii xam nga bu fekkee ne sax dañ dañ ne suuf bi ñu war a jëndi. Mhm. bu fekkee dañ ne suuf bi ñu war su li li nga xam ne bii moo mën a tax loolu nekk. Mhm. suuf bi ki nga xam ne ci lañ ko war a def. ci lañ war a teg loolu noonu structure boobu noonu newul fii ma nga jóge mi ngi jóge ba euh, Nouvelle-Guinée. Euh, euh, li ci des mi ngi jóge mais loo xam ne li presque genn wàll gi quatre-vingt-dix-neuf pour cent bi yëpp mi ngi fii mhm. mais pourquoi pourquoi ñu war a mën a am ñu war a daj coono boobu yëpp balaa ñu balaa ñu lay ubbi sa porte fay pour mhm. dañ ko war a def mhm. dañ ko war a def ba bu su boobaa ñooñu nga xam ne bii ñi ngi xaar boobu ba léegi pour ne bés boo leen taxawalee affaire bu mel nii ñun dinañ ci def suñu participation pas ay cadeau xaalis sincèrement ay partenaires yi nga wax ne Aziz mais man dama lay wax ci nga xam ne bi ñoom ñooy xolu affaire bi. c'est-à-dire euh, xolu business bi quoi Idrissa loolu muy ñafe noonu loolu muy ñafe noonu xam moom xam na bu baax waxtaan nañu. Euh, wan naa ko site boobu et tout saa dugg na ci xam ne ne parce que comme daa Papa Giovanni moo ëmb loolu yëpp moo géré lépp lu jëm ci wu cadre toxicodépendance. Mm. comprendre nga. foofu ci mhm. Italie. foofu en Italie. ñu am nag plus de trois cent cinquante gox yoo xam ne ay ay ay kii yoo xam ne ay ñu ngi. endroit yooyu yëpp dañ ciy def désintoxication ñu ngi def ay ndimbal yoo xam ne di jàppale xale yi di leen di sauver des vies. Mhm. mais pourquoi pas fii Sénégal benn affaire rek lañu nañu essayé benn. dañu dem fan fii si piat bi nii ci Idrissa defal ko espace tabaxal ko. quelques affaires. Mhm. def benn vingt chambres internet xale yi. pas ñu leen di jox toujours ay yi ay affaire ñuy dem ko ñëw non. tout à fait mais mais dépassé nañu foofu. mais pourquoi ñu war a mën a am jafe-jafe boo xam ne bii il faut nga fëgg buntu téeméeri milliards yoon pour ñu dog la ubbil wala sax ñu yërndu la ne la non attends xaar xaar wala dafa génn sax. Mhm. mais mais du yoon. mais loo xalaat si yeneen centre yi nga xamante ne gudd. oui yeneen centre yi nga xam ne parce que par exemple keroog am na benn auditeur bu woote ah, di ko wax ñu auditeurs yi tey mën ngeen dugg ci émission bi exactement comme lundi donc euh, ngeen dugg euh, wax ñu seen xalaat seen expérience aussi par rapport ak euh, thème bi parce que comme waaju suñu waay jooju ndeysaan dëkk HLM 1 man daf ma marqué parce que il a cri de cœur la doon wax à mm-hmm. quel point koñam nu muy gisee ay xale yoo xamante ne ne ci buntu maternité bi la ñuy taxaw di fa def ma ne ko effectivement fépp la tey tey tey loo loo xalaat avant ñu egg sax ci ci ci sit yi nga xamante ne ne yenn ñi ñu ngi foog ne centre de désintox lañu parce que kooku mu ngi wax naan ma dalal jàmm dañ fay désintoxiquer mais en réalité <laughs> amul fii centre interne ça n'existe pas ça n'existe li may wax ni mën nga ko confirmer ma ne la ça n'existe pas fii au Sénégal amul lu CIPIAD moo fi nekk CIPIAD boo gisee à chaque fois damay wax CIPIAD tëb yi ci des parce que sincèrement si moo fi jege. Mhm. moo jege quoi ci loo xam ne li wax. ci démarche bi dimbali woon si rek. Ah, jox leen po yenn po effet bu loo xam ne du leen coûter sax yenn somme yi quoi. jàppale ko rek mu taxaw. yaa ngi xool mais le reste moom sincèrement bëgguma ci tudd benn tour mhm. mais sinon amu fii ça n'existe pas. fii bi fi si piyaat ñëwee ba léegi. liggéey bu xarañ bi ñuy def wax dëgg yàlla ak seen possibilité yu tuuti yu ñu am ah vraiment boobu ba léegi. Mhm. mais war nañ leen mën a ne mais attends sa place bi rëy na te mais tant que nag am utuñu borom xam-xam yi. c'est demu ñu que demuñu ne non attends diw kat moom lii moo ko yel lii daal bagaasu diw la. mooy liggéeyam moo ci moom moom xam-xam am na ko ci. Mhm. mais nañ ko seeti. dafa mel ni tey jii nga ne professeur Ibrahima Thiam wala nga tudd benn nit boo xam ne ci lii la màcc docteur mais mënoo dem fekk koo xam ne kii sawaay maçon la nga bëgg ko jox yenn pour responsabilité yoo xam ne xamu ci dara parce que sama nijaay sama nijaay mooy ministre nangam wala sama. wala politique. Euh, comprendre nga mais c'est pas bien. Mm-hmm. affaire dañ koy jaarale si yoon. tubaab yi dañu liggéey noonu tubaab yi xamuñu sama doom la wala sama nangam ñoom dañuy job dañuy liggéey. comprendre nga moom loolu mooy indi avancement wu réew. mais loo xam ne lii mi ngi andi musiba naaru laay yoo xam ne sa bakkan xëj na ci yow mën ngaa génn ñu agressé la dóor la mm, mm. parce que lan gi ko def moment boobu daf ko fekk ci benn moment ko <coughs> nekk en manque. Mm-hmm. mais teyu ko da nga xam degré manque am ban la toll. Mm-hmm. xam nga ko te loolu moom dafa neexutu muñ. Mm-hmm. douleur boobu noonu mais genre nit yu man na ay doomu sénégalais lañu mais mën nañ leen dimbali naka lañ leen di dimbali li ngeen wax nii moo tax ma ne affaire bi souvent du ma ciy bëgg di retourner di ki di wax ci rajo yi mais maa ngi xaar parce que je sais nit ñi dégg nañ ko euh, sincèrement gouvernement bi war na ji taxaw sincèrement. Mhm. ministre de la santé bi ñu dénk affaire santé na boole ci mbas mi lii. Sippiat man man ni ma gisee Sippiat emplacement wu Sippiat mi ngi biir Dakar vraiment am na place. Mhm. gis naa environnement bi am nañ fa ay quelques affaires yu bien li des rek mooy ñu tabaxal leen fa ay affaires jox leen ay possibilités su boobaa li ñu war a def ñun ñu def ko. su boobaa. 88 628 98 98 boo leen bëggee participer ci euh, émission bi wala 33 841 22 33 wala 33 825 18. 30 man j'aimerais bien qu'on écoute un extrait de l'album du la album de Maïga comme ça ñu mu ci profité tout ñu dóor café tey yéen a ngi doore egg si euh, sur la 98 point cinq yéen a ngi ci seen émission à ak l'antenne ak Aziz Koulibaly ak euh, man mi Rose Sène ak suñu invité bi nga xamante ne tey non mais j'aimerais bien que euh, titre bi di jot jot a ah, daal léegi ma wax leen ma ñii doore ñëw ma wax leen ne ñu ngi si émission ba pare doo bàyyi ma eggali sama waxtaan. waaw oh, <laughs> nga dëgg nii sama xel. gis nga koy bañ a fàtte Aziz ah, Coulibaly musique gis ngeen kii ah artiste la musicien la animateur musique la man man du ma man man animatrice musique moom animateur musique la wax naa la ko de ah, gis nga lii dama a fàtte parce que dama déglu chanson bi mm. waaw euh, mu mel nii uh-huh. ah, dafa euh, dafay xaw a nuroog su boobaa waaw waaw thème yi quoi ci oh, oh, euh, thème uh-huh, uh-huh. donc euh, et puis y' a Suboba aussi. ci ci album bi bi nga reprendre uh-huh, tout ça. moo tax ma bëggoon ñu waxtaan ci tuuti quoi. nga ma bu baax. pourquoi euh, dafa mel ni da ngay trop ci genre message yi. waaw parce que xam nga di bañ a nax sa bopp dafa neex. Mm-hmm. nax sa bopp dafa doy waar imaginer di nax sa bopp. cest di nax sa bopp rek ba pare nga xam ne yow yaa ngi nax sa bopp euh, looloo tax may insister toujours ci message yooyu parce que ñuy nax seen bopp lañ dafa bëri waaw dañuy dañuy nax suñu bopp lool sax waaw ci jullite gi hmm, ci ci mën a solo solo boo xam ne bi nga eh, kii jullite waay. naa mag mhm. naa nga am solo solo boo xam ne mais kii il est sérieux naa ma ci yu bëri. ci yoo xam ne moom la Carlo di doon wax rek mu ne kañ la sénégalais yi di loo <laughs> ci ci naxaate bi. tu comprends léegi affaire boobu noonu moo tax man sama woy yëpp boo xoolee toujours souvent ci yàlla lay gën a suma inspiration toujours rek damay ay ay yu diis lay doon nag. Mm. parce que lu mel nii su boobaa. xam nga rëccu dafay wees. Mm-hmm. effectivement. parce que booy nax sa bopp nax sa bopp benn moom benn jour dina ñëw eh, boobu boobaa mooy loolu. et sa ça ça toujours dans le cadre du thème qu'on est en train de développer parce que dafa am beneen lu ci topp. moo di eh, léegi. Ah. Euh, naka nga mën a conseiller euh, jeunes yi. Mm. ba nga xam ne ne euh, lan moo leen ci mun a mucc daal xaw sama olof ndax peut-être leer. lu leen mun a muccloo ci affaire ci affaire yi ba nga xam ne duñ ci dugg ci lan lañu war a éviter ba nga xam ne duñ dugg ci yéen ah mais mais tu sais xam nga lan moo gën a sonal xale yi. parce que nee nga que euh, euh, dañuy nax ban ba nga nax sa bopp. Ah, waaw donc xam nga loolu yëpp ci la. mais mais nax sa bopp la parce que tamit aussi xam nga problème bi Aziz ah je te jure gis nga mooy li ma wax rek quoi tant yaa ngi nax sa bopp affaire bi day gën a graaw day gën a graaw te doo am su doo mës a am solution nag. doo mës a am solution parce que yaa ngi yow yow mi war a def yow mi solution yow yaay nax sa bopp. fay amee solution donc affaire bi daal. Euh, gouvernement bi ñu ngi koy ñan ñu leen di ñaanaat leen ñaanaat ñu génne ay possibilités. ubbi seen bët bu baax xam ne vraiment c'est grave. affaire bi ñàng na. comme ni ñu koy waxee ci musique bi ñàng na. vraiment tey doomu Sénégal lañ ñun waaw ni ñu respecté mbas mi yal nañ ci yàlla musal loo xam ne dañ naan nañ ci yàlla musal noonu noonu lañ koy noonu lañ koy waatee. Mhm. yal nañ ci yàlla musal. Mhm. cancer yal ci yàlla musal sida yal nañ ci yàlla musal Ebola yal nañ ci yàlla musal mhm. mais pourquoi pas bii duñ ko siiwal. c'est la même chose. alors te moo gën a dangereux en plus. parce que lii yow mën nga dem di dóor rey nit mën nga tu peux faire n'importe quoi. ci loo xam ne lii kii desoon na rek mu am au moins benn affaire boo xam ne bii kii dina mën a situé wu ne xaaral ma dem uti wàllu. xam nga uti wàllu boobu la booy amul moo tax bon. wàllu boobu noonu moo tax euh, affaire bi difficile. fooy ute ji wàllu ñu yóbbu la fan mbaaw. <laughs> non ñu yóbbu la fan dara xel ñu yóbbu la san mais ñooñu loolu du seen liggéey. comprendre mm-hmm. nga donc euh, il faut ñu xoolaat affaire yi quoi. comme ni ko Aziz waxee euh, may nga lan nga mun a lan la ñu mun a xale yi lan ñu mun a moytundiku pour mun a. xëy na échappé tuuti moytundiku bi daal mooy nga yem sa place toog xam li ngay def parce que xale yi dañoo neexut a waxtaan da nga leen wax lii ñu jóg dem defi lay <laughs> comprendre nga. Mm-hmm. waaw. nit kii bu fekkee ne da nga ko wax mu dégg di essayer sax mën naa ne ah kii de au moins mi ngi essayer mais dégg naa la euh, te mënulu ma la dara lu mu wax rek mais dégg naa la jóg dem defi lu la neex mais. est-ce que stigmatisation bi taxul ñu bëree tey jii ñi nga xamante ne ils auraient pu apporter. parce parce que je donne un exemple da ngay gis par exemple yenn dëkk yi nga xamante ne ne ils sont beaucoup plus avancés que nous ñuy def ay par exemple ay ay genre rencontre uh-huh. par exemple ñi nga xamante ne ne ay góor lañu yuy dóor seen jabar je donne un exemple uh-huh, uh-huh. ñu def ay rencontre entre ñoom ku nekk wax sa expérience ku nekk wax mu am benn nit boo xam ne moom mooy toog di leen di déglu ku nekk bu waxee ba pare ñi wax ko li nga xamante ne ne foofu la amee lu lu faay lu tax ah. ah. warut a defee nii xam nga li may wax parce que dafa foofu nga dëkk mu amee ko aussi si ñoo xamante ne ne tey jii mus nañu defandikoo Sinébar wala am na ñu jaar-jaar boobu noonu nan la ñu mun a def ba accompagner ñi ci des wala ñu ciy dóori dugg wala ñeneen ñi nga xamante ne est-ce que du tamit stigmatisation mooy joxoñ bi joxoñ bi ak ah moom la kañ ah diw la kañ ah dégg naa da koy def est-ce que du loolu mooy tax ñu bëri di ragal di accompagner tey <laughs> jeunes yooyu waaw mais parce que mooy li ma la wax rek affaire yi moom euh, affaire bu dangereux la li ngay wax nii c'est triste nag mhm. waaw parce que ñun dañoo gaaw ci loolu trop joxoñ moom la nangam ak nangam mais genre affaire yi ngay wax nii effectivement gars yi dañ koy def ay rencontre yoo xam ne yi du doon rencontre caaxaan rencontre bi day am day day day day day nice parce que au moins ñaar ñett wala ñeent. dinañu am lu ñu yóbbaale seen kër déglu ne eh, affaire bi kat ñu ngi commencé di comprendre ñii seen jóg bi nii ak euh, li nga xam ne bii moom lu ñuy la ñuy moom mooy thème jour bi tey. Mhm. te moo bëri ci dëkk bi ni ñu jéem a essayer seet nu ñu ko fi jëlee. Mhm. su ñu gisee kenn ñaar ñett di ko di ko def di ko euh, kii bu boobaa mën na dimbali ñi nga xam ne bii ñoom ñoo fay nekk toujours di joxe ñaate. parce que souvent ñun ñu ñooy yàq toujours genre la ndaje yooyu. te macha allah euh, fii nii tamit aussi euh, dañ cee xaw a bëri lool. waaw mhm. ah, waaw waaw te te pourtant fii Sénégal mais ak ñoo jekkoon ci am lépp. c'est ça. am ñu leen accompagner. loolu surtout surtout am ñu leen mën a accompagner man c'est c'est man sama problème <laughs> surtout mooy foofu la nekk. amuñu ñu accompagner xale yi pour que ñu mën a vraiment. Euh, affaire bi ci mu rax. xam nga affaire bi bu ci foo mu jee rax rek. Euh, te foo moom boo boo xasee ba ne foo boo xasee ba xalaat foo rek mooy que lu négatif nga xalaat cest dire gëmatoo yow déjà rencontre bi. Mm-hmm. muy muy ba ci gàbbaajanu gox yeeg affaire yi ñuy def mais ay coono la coono yu métti la ñuy def juste rek pour mën a sensibiliser nit ñi wan leen ni mm-hmm. lii mooy mm-hmm. réalité bi lii ak lii ak lii ak lii. affaire yi bëri na bëri pàcc yi dañoo bëri. pàcc yi bëri na trop quoi yi ñu war a régler quoi mais malheureusement euh, jërëjëf euh, jërëjëf. malheureusement juguguñu daal. <laughs> juguguñu daal pour loolu. <laughs> problème bi bés bu ñu ci jógee je crois que àddina yëpp dinañ ko dégg parce que bon wax dëgg yàlla euh, point yu am solo la yoo xam ne bëri na bëri boo xam ne man suma sañoon daal wax dëgg yàlla ñu le président Macky Sall ak gouvernement ak le ministre de la santé. Mhm. ñu jéem a xool naka la ñuy vraiment jublu ci loolu ñu ñu ñu ñu jéem a xool parce que da ngay waaru de. te ñoom xam nañu bu baax euh, dëkk bi loolu bëri na fi yal na am pagaille alors pourquoi pas ki ki ki yelloo loolu c'est-à-dire ki yelloo xam-xam boobu noonu waxuma ko parce que man dama am xam-xam boobu noonu waxuma ko pour loolu. Mm-hmm. mais juste rek nit ki jox ko lu mu yellool. Mm-hmm. xam nga mais bul dem xooli benn menuisier métallique mais bëgg ko jox bëgg ko jox benn responsabilité bu toll noonu mais doo mus am résultat bu baax. c'est sûr mais fa menuisier métallique naka la dafa xam luy loolu. Mm. mais maçon dafa xam luy loolu baykat bi xamul loolu mais ku ci nekk nañ la jox li nga yellool. Mm-hmm. même bu fekkee ne dafa laaj génn benn budget gouvernement bi génn benn budget boo xam ne bii dinañ gars yi dañ ci mën a liggéey. defar ay formé formé ay ay structure yu bien yoo xam ne yee booy dañuy dem di liggéey liggéey dem di ñëw. tout à mais mais nga def sa formation def sa programme. soo defee gars yi bu ñu xasee ba gis ni ah kii de fii la géey defee formation am génn na léegi nangam la. il est mhm. devenu ça il est devenu nangam mais su boobaa gars yi dañ ci topp mais bu fekkee nii lay demee mais kan kan mooy gis kenn du gis. Mhm. waaw kon. mooy que tey ban forme de sensibilisation nga xalaat ne ko war nañ ko mën a mettre en place. ah mooy li ma wax léegi rek. <laughs> ça fait bizarre fi ñu nii waaw ah, mooy li ma wax léegi rek xëy rek ne euh, yéene naa ko trop nag Idrissa loolu xëy rek woo ko waaw ne ko kaay yi kaay yi vraiment euh, yi ñuy dégg ñu daal. xam ni ni yow jàmbaar nga. kaay ñu ñu jéem a xool naka lu ñu espace bu rëy bi yëpp. naka ñu ko mën a développé. Euh, su boobaa dañu ak Idriss ne mais attends may nga tamit aussi euh, buñ ko ci wowoon. Euh, dina baax san mu mu mhm. mu def ci mu dugal ci xam-xamam. Mhm. mais su boobaa mu nekk lu sérieux parce que boobaa rek bu boobaa bu ñu jógee ñoom mais bu boobaa ñu jóg. parce que ñun ay doomu Sénégalais la Mm-hmm. on est des sénégalais mais suñu réew dañu bëgg mu mu mu nice quoi c'est-à-dire mu mu xam nga ay nit yu saa. Mm-hmm. xam nga euh, yàlla nag mooy dogal mais am na yoo xam ne tamit nit ki moo ci dugal boppam. Mm-hmm. et souvent aussi tamit àndandoo yi. waaw ah, y' trop de. am na ku nekk si ligne bi. à vous l'antenne. 88 628 98 98. waaw kay ñu ngi lay ziar. <laughs> Rose c'est la roseraie. c'est moi. maa ngi lay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. nuyu sama gannaaw Abdou Abdou Koulibaly. nuyu bi mat na sëkk. bismillah. grand. A au grand A au carré. Abdoul Aziz tamit seen seen invité bi. Uh-huh. Maïga di ko remercier de sa disponibilité d' abord. waa di rafetlu vraiment analyse yi bu def vraiment c' très pertinent. Uh-huh. waa c' très bonnes idées. Uh-huh. waaw man avant may kii damaa bëgg indi benn petit rectificatif. keroog dama leen waxoon euh, dalal jàmm c' est pas dalal jàmm c' est xel. ah d' yaa ñu doon wax affaire dalal jàmm bi effectivement. dalal xel dalal xel te toujours à de Fatick. ok c'est pas dalal jàmm mais dalal xel quoi. mais même boobu foofu amul du du centre de désintoxication. même boobu. Ah. ah ma ne même foofu du centre de désintoxication ah Maïga du loolu lañ doon waxtaan léegi. <laughs> waaw waaw sa bi sëñ bi na sëñ bi ma ne. ñu ngi lay déglu. ma ne foofu daan naa fa dem comme ni ma la euh, euh, mhm. ne dañu toppoon itam foofu passé na 15 xam nga loolu laa lay la doon wax foofu yooyu noonu yëpp dalal jàmm dalal xel ak ba ci fan bii. hôpital Fann bii fi ñuy mm-hmm. wooyee pavillon France mm-hmm, mm-hmm. ay euh, hôpital psychiatrique lañu tey pour dimbale ñi ngi am problème wu xel la à la base loolu loolu lañ fay loolu lañ ko ubbiwee Mm-hmm. mais du duñu désintoxiquer xale yi nga xamante ne ne wala mag ku ma munti doon ki nga xamante ne ne dafay jëfandikoo ay ay euh, ay euh, ay ay drogue ak wala alcool ak lu mu mun munti doon pour loolu dañ si sa yaram mooy désintoxique ko ko mooy ñu génne ko ci sa yaram génne ko ci sa deret ba nga ah, xamante ne ne sa xel ak sa xol dina ci dina ci wàññeeku bu dañul totalement it dina ci wàññeeku ndax que di ñuy gis ne que am na ñu koy arrêté sax delluwaat ci encore loolu tam xam naa du ñàkk ñu waxtaan si voilà daal di xool ah naka la ñuy naka la euh, gouvernement bi wala ministère de la santé euh, jéemee coytu loolu xool naka lañuy ñuy créer centre boo xamante ne ne interne lay nekk. saytu saytu ay ta saytu. <laughs> waaw loolu loolu la daal. waaw mais bon. mais yëpp ay xel la foofu ñoo ñëpp ay ay. Mhm. fagaru moo gën faju wallaay ndeysaan. Ah? wallaay wallaay. fagaru moo gën faju waaw waaw. par exemple xam nga société pour man. Mhm. dafa am deux de base très importants. Mhm. mooy da ngay da nit ñi ba pare. Mhm. ndax xam-xam ne mooy science avec conscience. waaw yooyu sama xalaat boobu ñaar ñaar ñaar éléments yu am solo ci société. wa war te ko état war a def ay jéego daal. waaw parce que xool xool actuellement influence yi bëri na. Euh, inter intoxication culturelle bi bëri na. Mhm. intoxication yi bëri na. bon mhm. te commencé ba man beaucoup de parents ont démissionné. Mhm. ou bien beaucoup de parents aussi xamuñu la sens de la responsabilité. waaw parce que pour man responsabilité dañ koy xam mais kenn du ko mun daal dañ koy xam mais mais kenn du ko mun. ah. xam nga yoon bi jaful mais xam yoon bi moo jafe. waaw. parents ba ils veulent bien faire mais xamaguñu yoon bi daal comment éduquer tes enfants et tout ça mm-hmm. waaw parce que soo nekk père famille sa kër nga doon fa malade ak tout sa mais vraiment mm-hmm. wala yow tu n'es pas sa biir kër lool loolu yooyu c'est pas bien war nga toogal sa ay sa sa ay doom wàññi télévision yi wàññi whatsapp yi yooyu yëpp. Mm-hmm. di teg ay thème di wax wala ay légende ndax yooyu daal ah. waaw xale yi xale xale yi di leen mën parce que xale warul ragal waajur mais da ko war a respecté daal. ah. xoolaat éducation bi. waa xoolaat éducation man ma ne soo amee sa ay doom. dafa mm-hmm. dafa pour pour ñu rus la ñu respecté la mais mais bu ñu la ragal quoi. Mm-hmm. suñu la ragalee yenn ragal yi mun nañ dem ba gis seen boobu révolutionné suñu révolutionné ça va aboutir à la dérive loolu laa gis quoi. ci influence yi la bokk. waaw voilà. ci ci ci influence la bokk daal. Mhm, mais daal la le le premier responsable la man toujours daal c'est l'état parce que nu ñu bëri ñu état yi ñuy def am amul benn njëriñ nit société nit ñi dañuy nitee ba pare conscient waaw c'est ça qui veut bâtir une société. Mhm. ah waaw man boobu loolu laa gis tey daal. dëgg la kontaan nañ si contribution. bi bu baax déedéet man kay maa ngi jégalu sax. déedéet déedéet ñu ñoo kontaan si jël sa téléphone woote vraiment. jërëjëf ah, ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a ah, baax. man maa leen di remercier. merci beaucoup merci mhm, merci. bon après-midi. mais euh, euh, dañ ci am d'après yow. mais ça dépend ça dépend am na parents yu sàggan. dañ koy euh, wax dañ koy wax dëgg bi moom ma ma man toujours man lu mooy suma problème ma ma man damay wax dëgg. Mhm. cest à euh, am na ci yoo xam ne yi parents yi dañuy sàggan wala nga wax dëgg yàlla njaboot njaboot boo xam ne ak dëkk jamono ji nu këfaloo léegi euh, dootoo mën a ay ñaari ñaar nga ci tal wala benn. parce que amatoo possibilité pour suivre quatre yi wala cinq yi wala six yi wala six yi ba dix yi. Mhm. su ko defee le reste ñoom après dañuy dañuy dañuy doon ay euh, genre bàyyi ma parce que du ñu du ñu am éducation de base du ñu du ñu xam dara donc ñooñu pour ñu jël leen dugal leen ci. genre mhm. site yooyu ma lay wax noonu dafay fas dafay yomb. Mhm. donc moi je crois que il faut que ñu ñu xaw a éviter tamit yenn affaires yi cest dire nit boo loo mënul bul ko vraiment parce que tamit aussi am na yoo xam ne lor sa njaboot la. am na yoo xam ne tamit aussi njaboot gi ci bopp ñoom ñooy choisir. àndandoo yu bon. wala nga choisir la sa bopp c'est pas rek toujours toujours àndandoo bu bon àndandoo bu bon yow nit ki tamit am nga ci part de responsabilité. am na ñoo xam ne li ñuy jóg rek choisir ne bon moi je veux bëgg def lu bon. Mm-hmm. ñoo xam ne nag influence su seen euh, ay seen biir moom moo leen andil tooxi doonu yooyu. Mm-hmm. am ñoo xam ne ñu toujours ils à la maison parce que dañuy dañuy ragal. Mm-hmm. waaw donc. Euh, problème la boo xam ne bii c'est pas facile à régler parce que je crois que euh, li fi njaboot gi macha allah euh, fi kër googu fi dugg euh, xale yi macha allah tubarfakala bu ñu matul dix mat nañu douze wala ñu mat vingt nangam ak nangam xale yi doo leen mën a gérer ñii ngi ci tëli yi ñii ngi. da ngay eh, eh, da ngay da ngay yuuxu suba ba ngoon man par exemple ni bu ma damay toog damay xool xool damay damay gis ni que parents yi dañuy yuuxu suba ba ngoon. <laughs> Mm-hmm. dëgg la de. suba ba ba tëdd di jot. Mm-hmm. ah dañuy yuuxu dañuy yuuxu dañuy wax rek dañuy wax rek. Mm-hmm. parce que xale yi duñu xam sax lu ñuy def naka la ñuy foowee sax xamuñu ko. xam nga mais loolu dafa nekk affaire yoo xam ne tamit dafa difficile. waaw bu dee. c'est jamono dafa ah, Euh, changé. affaire yeeg te gars yi ànduñu ànduñu ak <laughs> jamono. waaw mi ngi noonu. ça veut dire que. ñii ñu ngi bëgg a euh, doxal yoon. di suivre valeurs yi. Euh, tout en bàyyi di bàyyi xale yi tamit ñuy nekk di leneen di leen mun a dévier aussi. je parce que xam nga y a une petite contradiction quoi ni si dañuy ne noonu nañu suivre valeurs yi. d' accord certes c' est bon de suivre les valeurs. mais en parallèle. yaa ngi def loo xam ne àndul ak sa valeur. àndul. tu vois c'est ça donc euh, loolu mooy euh, un peu euh, la contradiction quoi te bëgg naa xam aussi tamit ci musique bi mm. xanaa Rose dina ne encore maa ngi wax ci musique mais c'est très important aussi parce que c'est très important pourquoi parce que est-ce que musique bi mën na am am na benn influence bu muy def aussi sur les artistes parce que y a beaucoup d'artistes bon gisu dégguma ci Sénégal Sénégal ou bien un artiste sénégalais boo xam ne décédé na à cause de la drogue Euh, déggu musuma ko dégg. peut-être xam na am na am na. peut-être euh, am na mais boo yàlla am na yoo xam ni moom doo ko. di duñ ko wax wax duñ ko wax. mais am na waaw mais euh, bon man bitim réew laay mun a wax ci loo xam ne ne bon siiwal nañ ko. ay ñoom Whitney Houston eh, bëri na bëri na Winehouse. foofu ëpp foofu. donc tu vois donc lan moo leen di ci dugal soit peut Euh, c'est la pression ou bien soit parce que euh, boo ko jëlee tu as beaucoup de de de capacité de pouvoir tourner euh, faire plusieurs dates ou bien je sais pas. Euh, voilà c'est la scène qui euh, moo lay traumatisé ba nga xam ne ni tu es obligé de de de de d'utiliser la drogue pour pouvoir assurer la scène. est-ce que musique bi ci loolu ci da ciy jouer. non non seulement affaire xam nga affaire yi. wala complexe nit nit day def yëfu nit. Hmm. man noonu laa ko mën jàppee parce que euh, musique bi métier la. Hmm. lii da liggéey yi di ñëw euh, boo demee ba toll ci yenn niveau yi nekk star c'est pas par force que da war a vraiment utiliser yenn affaires yi. Hmm. xam nga benn vice la benn cercle bu vicieux la boo xam ne euh, parce que jigéen ñaa ngi nii xaalis baa ngi nii luxe baa ngi nii tu voyages beaucoup tu tu xam nga tu tout quoi. mais mais pourquoi moom pourquoi mun a yem foofu mais daf ci am ñoo xam ne ñuy bëgg gën a découvrir hmm, te loolu hmm, hmm, dafa sa cercle bu vicieux la boo xam ne bii mais bu la fekkee nga nekk multi multi milliardaire mais tu vas mourir tout de suite mais foog force boobu da ko àttan loolu du yëfu nit nit booy def def yëfu nit du yëfu nit <laughs> monde boobu nga may laaj noonu mais du yëfu nit alalu seytaane la kooku c'est la mort. moom mooy kooku ñuy wane noonu te yore affaire bi la la mm-hmm. mort. Mm-hmm. moom c'est la mort. donc mm-hmm. lu ko nit mën a éviter na ko éviter. waaw sincèrement loolu tax. ci biir art bi ci biir footballeur yeeg boxeur yeeg ak ci ci lépp. ñoo xam ne ñii ay borom yi tur lañu. fii ñu dul xam loolu mais fait souvent ñu leen di dañuy xam ne li moo leen rey. c'est récemment rek kaaw ay Diego Maradona ay affaire nañ ci kaaw yooyu la moom leen problème xam nga donc euh, ku ko mën a moytu daal nga moytu ko mën a bu bon nga a def attention nga def attention parce que on est en de vivre benn monde boo xam ne bii c'est à l'envers bokkutul ak bu njëkk ba nga xam ne bii parents yi doon nañ mën a maîtriser seen doom yi. Mm-hmm. actuellement nii kër goo fi dugg ay problème kese la. gars yi tal sa xale yi yaa ngi tal problème mu dépense fu muy jëlee ndékki ki fu muy jëlee kii ki bëri nañ fi. ak problème mu wujje. yow du jaax du xaaj <laughs> <laughs> man saa bu ñuy Sénégal mais gis nga damay toog di xoole damay damay toujours damay di baax ak ñu jël nekk ci ligne bi salaamaaleykum 88 98 98. salaamaaleykum waaw waaleykum salaam ça va soxna si. ça va alhamdulilah. nee ñu ngi sant bu eh? baax. xanaa Mayga ngay laajte. Ah, ana tonton Mayga. waaw Diakhoumpa ñu ngi taw. <laughs> bon maa ngi lay waaw doon lay ziar bu wér Diakhoumpa. mën naa sama papa rek yow ko si lay déglu quoi moo tax man euh, sa son yi dama dama ko kër trop quoi. son yi waaw waaw merci merci beaucoup merci. waaw moo am na lu mu teg ma bu kaw bu yaay waxee nga yaay <laughs> bañ. di ko liggéey nga ne <laughs> yaa bañ. mooy yàlla moom maa su ma koy déglu damay a góorgóorlu quoi te àdduna bi quoi. c'est bien c'est bien oui kontaan nañ trop kontaan nañ trop. sant yàlla jarbaat kontaan naa kontaan naa. ak ak son bu ngay aw on pen mooy kii kër jafe na. ah suuf mooy bu ngay kër waaw boobu tam son boobu tam ñaax na trop. waaw <laughs> ah, suuf la tudd non kër foofu dafa grave ah, quoi mais euh, kër yooyu dañ manqué quoi kër yooyu ko manqué léegi quoi. dégg nga dégg nga mhm. dégg suma jabaar fi mu mhm. waxee léegi nii. Mhm. nee na nee na kër yi léegi dafa manqué. dafa manqué na dem mais mais jaxbaat euh, kontaan naa parce que li mu wax nii déjà affaire bu garaaw la wax. na affaire yi kër dafa manqué léegi. mais wala dëgg. ba mu jaax doo ci def kër doo am dara te kër ak ay vent. li ñuy wax vent. Mhm. Euh, dafa am solo ci musique. tout à fait te yooyu yëpp gars yi dañ ko nalawal. tout mais kër dafa am solo wax na dëgg de. ñu dégg ñu jëlaat ku nekk si ligne bi salaamaaleykum. 628 98 98. waaw. Mohamed Diop la. Mohamed Diop yëkkatil baat bi si kaw si te plaît. allo Mohamed Diop la. waaw ah, man bu fekkee da nga sol casque nga génne casque bi nga jël téléphone bi parce que dégguñu la dara dégguñu dara ci ah, ma nekk moo xaw a bëri kon da ngay nga nekk waaw doo bouger tuuti parce que dégguñu dara wala casque nga yore da yore casque. sa téléphone la. waaw waaw waaw ah, baat bi bu baax a baax waaye. di nga dimbali ñu parce que dégguñu <laughs> ah bisimilah. waaw waaw euh, bi rek. Mm-hmm. waaw di kontaan ci invitation bi. Mhm. nga xamante ni moom ngeen invité suñu grand bi noonu. Mhm. Mhm. merci merci rek. wax dëgg yàlla dañuy kontaan ci ay wayam. waaye itam euh, am na lu mu doon wax sànq ci wàllu drogue ak yooyu. mu mel ni mu mel ni boo xoolee comme centre Zakirat bokk na ci centre yi nga xamante ni dañ ko taxawaloon. pour ci pour ci wàll yu demee noonu nga xamante ni ñi nga xamante ni dañ cee nekk puus ci ba xaw a sori te mënuñ cee génn mm-hmm. du ak ñoom buñ leen joxoon ay moyens mm-hmm. dana bokk ci liy dimbali nit ñi bu ko defee ñuy mën di jël ñenn ñi prise en charge di leen jàppale mm-hmm. mais li nga xamante ni loolu amul mooy centre Jacques Chirac joxuñu leen moyen loolu moo indi jafe-jafe yi nga xamante nii bokk na ci centre boobu rek man laa fi xam ci boo xamante ni nii ci Sénégal ba mu daj buy xeex euh, ci wàllu jëm ci wàllu drogue noonu. Mhm. léegi ñi nga xamante ni xëy na tamit lenn am na ci mooy yenn euh, gars yi nga xam ne ñoo fi dugal yenn euh, bagages yi. Mhm. ñoom tamit dañoo bokk ci ñi nga xamante ni ñiy appuyer lañu. ba mooy tax yenn yi du mën a nekk. Mhm. parce que tamit financièrement ñoom it dañuy taxaw dañuy bañ ku suuxal seeni bagages. te man jàpp naa ne ñooñu daanaka ñoo yenn gars yi nga xamante ni ñoo war tere affaire yi euh, sorianto wuñ ñoo bokk ay mbuus. Mm. léegi nag loolu nag man loolu laa jàpp ni loolu bokk na ci yi nga xamante ni nii pour mu jóge si bu fii Sénégal loolu ci la bokk. mais bu fekkonte ne comme centre Jacques Chirac. Mm-hmm. defar nañ ko ni ñu ko war a defaree ndaxte tey jii boo fa demee problème mu cest boo buñ nee la fii. centre la boo xamante ne nii gouvernement bi moo ko fi defaroon da naan non non non non te mook police Thiaroye ñoo taxaloo ci biir mook police Thiaroye sax ñoo bokk même collect collecteur yi. tout à fait. mi ngi noonu loolu nag xam nga dafa xaw a ñaaw ci gisin ñun ñi nga xam ñu ngi dëkk ci banlieue bi. Mhm. Euh, yooyu daal wax dëgg yàlla te xam nga fii tamit ak ni fi affaire yi mel. xëy na donte la nag ci yenn milieu ci yenn milieu yi nga xamante ne ay quartier résidentiel la fa la fa la bi ëppee. mais bu dee fii nag wax dëgg yàlla tamit gaa yi lu nekk la yëpp lañuy ñuy jaxase yooyu tamit mm, te en même temps comme ñu mel ni ñoom Mayga tamit wayoon na ci. Mhm. waroon na ci delluwaat waykat yi ñu ci bëri waroon nañ ci di dugg di sensibiliser jeunes yi nga xamante ñoom lañuy ñuy déglu. Mhm. yéen animateurs yi tamit ngeen bañ di daw débat yi. Mhm. bu ko defee di toog di ci waxtaan. tout à fait. bañ a bañ a bañ bañ a daw bagage yi ndaxte des fois tamit am na ci ñoo xamante ni. ñu ngi xalaat ëllëg bu ma ko bu ma ci waxee ëllëg ak si biir mën nañu mën nañ ma képp ci beneen côté. Mm-hmm. mais wax dëgg yàlla yéen comme euh, Sud bokk ngeen ci ñi nga xamante ni ay référence ngeen ci Sénégal yéen a fi jiitu. Mm-hmm. te en même temps comme Aziz yi ñun bañ ko dalee suivre yàgg na depuis 94 ba tey. Mm-hmm. mais en même temps mosuñu ko dégg ci loo xamante ni lu garaaw la. buñ ko doon waxuma la moom ci mais rajo bi sax buñ leen doon dégg ci garaaw kon bi fekk nañu euh, ñu bokk ci seen ay auditeurs dañuy seeti feneen mais wax dëgg yàlla depuis 94 ba léegi yàlla def na bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii saa bu ñu xëyee mënuñoo xëy suba ba ngoon. Mhm. te déglu wuñu leen ak ci zone bu ñu mën ci nekk. ñu ngi ñu mën ci déglu bu ko déggul ci RFM ñun pour ñun wéru. di leen ci jaajëfal bu baax ci sant di leen gërëm. di ci di sant kilifa yëpp wax dëgg yàlla di rafetlu tamit invitation may nga bi. kontaan nañu merci jërëjëf jërëjëf. bu rafet la la waxal li la wax nice na de. wallaay jërëjëf sant yàlla sant yàlla. te yàlla na sax te yàlla yàlla nañu ci yàlla dimbale daal. alhamdulilah bu ñu dégg ci leneen lu dul noonu la dina ko fa dul noonu. lu dëgg. informé ko rek ne que tamit mooy centre bi nga xamante ne moom mooy mooy centre bi ñu njëkk inauguré sax boo xamante ne ne pour jàppale jeunes yi nga xamante ne dañuy nekk euh, dañuy am addiction 2015 euh, lañ ko lañ ko lañ ko inauguré donc je pense que bu ñu seetee 2015 euh, fekk na suñu président son excellence monsieur Macky Sall mu ngi woon ci état bi on est d'accord donc loolu bu amee mooy que def na ci un d' accord li ñuy ñaan rek mooy pas boobu noonu. ñu mun ko poursuivre voilà xam nga ni tam su defee lu baax danga naan def na lu baax mais defaatal lii bu ñu defee nii moo gën. ah loolu la may ga di di di joytu loolu la man mii di joytu ak keneen ak keneen waaw ñu ñëw ko nekk ci ligne bi. à vous l' waaw salaamaaleykum. Oh, maaleykum salaam ça va. waaw ça va ça va Ñambe Ndiaye. ñu ngi lay ziar Ñambe Ndiaye. waaw dama tombé si émission bi. parce que mhm. sama woykat moom ngeen invité. ay <laughs> ci bismillah. moo tax bon dama woo rek euh, pour wax ko ne bon. Mhm. am na ñu ko bëgg-bëgg fii Sénégal quoi te si la bokk. merci am na woy am na woy yoo xam ne su ma koy dégg sax damay fay lamb bi quoi. dëgg la ça réfléchir rek yooyu. <laughs> ay su boobaa. Oh, ay ay du dañ ak. Mhm. surtout benn beeg yooyu. benn ñett yàlla waaw yooyu sax sama sama doom yi lañ ñëw. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan kontaan naa euh, kontaan naa kontaan naa vraiment. ñu ngi lay encouragé bu baax. merci beaucoup yàlla yàlla jàppale bu baax. amiin amiin amiin lu mooy ñaan rek mooy bon way yooyu soo mu munee xool nooy def ak euh, peut-être waa super jamono delloowaat. remix ba xam quoi parce am na ñoo xam ne bëgg nañ ko seen xol quoi. <laughs> waaw waaw waaw yàlla baax na yàlla baax na. Euh, maa ngi rafetlu bu baax a baax li nga wax. Mm-hmm. yàlla baax na yi nga wax nii yëpp lu possible la. lu mm-hmm. ndax ndax lu rafet nga wax lu rafet nga. waaw waaw ah, donc tamit fois retrouvailles yi baax na ci. Mm-hmm. <laughs> waaw euh, merci beaucoup. merci à ah, merci merci à bientôt. merci Jammé jërëjëf mais gars yi bëgg nañu trop euh, retrouvailles même man mi sax euh, je album bi y' a ah, un peu de retrouvailles y' a dedans ah. Aliou Seck gars gars jamono la ñuy wax jamono dañ ma koy yàgg affaire yu ma koy ko yàgg wax dañ ma un plaisir de voir euh, Maïga sur scène tu vois yàgg nañ ma ko wax et puis xam nga dafa amoon feeling quoi et puis il a toujours le même feeling ah tu <laughs> ma dugg si si ma ne ko yaa ngi ko am 18 ans de instant bii nii macha allah macha allah yow <laughs> ma écouté euh, Sububa comme que euh, auditeurs yi ñu ngi koy laaj Sububa bien sûr bien la nouvelle version de qui est sur le dernier <laughs> Maïga qui est devenue rituel avec euh, cette musique euh, Suboba, une version remix euh, de son dernier album qui actuellement sur le marché. ci wax dara du ma ci commenté <laughs> xam naa ne mi ngi xaar wax dara quoi. bi maa ngi jooy eh, bee eh, ak Suboba bii. non bële moom a dàqal. ma dàqal <laughs> mais lenn laa mhm. vocal bi changé wul. ça veut dire euh, même timbre vocal la la garder. Eh. à part dafa am na benn parti boo xam dafa xaw a wàcc tuuti quoi c'est-à-dire moment jamono jooju da ko doon yéege. ah. ah mais Fatou Mbodj gis na euh, beaucoup plus posé. par uh-huh. rapport euh, la première version. Uh-huh, uh-huh. Euh, donc bon c'est normal si si. peut-être peut-être Gambie la quoi. peut-être problème problème mu Gambie la. et puis c'est une version remix aussi. voilà remix la bon mënul doon. waaw nekk la même chose quoi la même chose et tout cela. Mm, mm, mm. loolu laa <laughs> mais <laughs> j'ai beaucoup apprécié. merci que timbre vocal bi changé ah dire <laughs> il a chanté comme la première fois ci même timbre vocal et tout cela mm-hmm. mais ça veut dire que il n'a pas arrêté de travail mais il continue de travailler tout cela. Uh -huh. et j'aimerais bien savoir euh, ndax il envisage de faire des concerts wala ay séries concerts fii au Sénégal. mais bien parce que bon. gëj ce que j'ai envie de le voir quoi. mais Aziz je te jure gis nga gars bi euh, ma mais mais affaire bi nga ubbi bi Covid dëgg ah mais mais mbiru yàlla la ma ne xëy na peut-être mën na fi jógee du suba wala gannaaw suba. mais je te jure gis nga bëri woon Covid bi nii moment bi nii maa ngi dóor. moment bi nii maa ngi liggéey. je te jure loolu kese ah moom moo moo tax jeu wu ma mais ça t'empêche pas par exemple euh, par exemple euh, le fait que nga nekk euh, en Italie bëgg euh, nekk fi di di prester du du difficile un peu ci di di def ay prestations quoi. non non non non non non non xam nga fële moom ndeysaan wax dëgg yàlla macha allah xam nga soxna saa ngi fa bon xam ne ni dama jóg dama ñëw pour liggéey euh, c'est pas la première fois ni la deuxième fois. donc hmm. euh, man saa bu may ñëw fii rek damay ñëw ci ay euh, base yu leer quoi. Hmm. man moom du damay tëb noonu rek ñëw mais cette fois-ci dama woon ne vraiment bu ñu yàlla jàppalee. Euh, vraiment war nañ mën a loo xam ne dinaa war a mën a jouer du ma yàqal dara quoi c'est-à-dire mën naa fi toog ba léegi daf koy jar bi fi ba 6 mois 7 mois ma toog liggéey ko quoi euh, yàlla tamit dimbali ma boo dem ak euh, Laurence wax dëgg yàlla def mu def ci liggéey bu xarañ. Mhm. parce que boo xoolee album bi wax dëgg yàlla àgg na foo xam ne fii diaspora bi yëpp jot nañ ci. Mhm, mhm. comprendre nga loolu yëpp euh, ndimbalu Lat Diop la. xam nga donc euh, vraiment loolu kese moo ñu teree joué. c'est-à-dire moment bi nii fa nga joué lenn ngay mën def def ay yenn affaires yoo xam ni à la télévision. ay affaires yooyu mais sinon à part ça mënoo fi joué boîte yi c'est xam nga mais moom ñu ngi xaar ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla ah yàlla mën na mën na ñoo xëy rek affaire yi jóge fi. ñoom seen box am ku ko accompagner mu ñoo def fi concert privé boobu moom damay ñëw toog. mais musiciens yi d' ngi fi gars yi ah. mhm. vraiment. Ah, loolu foog ñu organiser ko ak Papis Konaté ak yow mais ah. Papis Konaté il t' accompagne aussi oh, mhm. xoolee bagages yi sax genn wàll gi yëpp boo xoolee ci loxoom laa ko teg. Mhm. parce que su ma moom ay doomu ndey lañu quoi. man saa bu ma ñëwee Sénégal lu may def rek ci ci ci moom laay ñëw. xam nga suma xarit la suma doomu ndey la ba ci liggéey bu mujj bi ma def nii yenn responsabilité yi mën naa ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent bi yëpp ci loxoom laa ko teg. Hmm. suma xarit la quoi. Euh, ñu ngi def benn émission bu tudd Senbox Live. Euh, mhm. donc euh, li mercredi lay am. Mhm. xam naa ne moom ba bàyyi ñu dem ba ci kanam rek. parce que ñu gën yaatal. espace gën a yaatal <laughs> espace yi parce que fii may pour mu live fii. non du rek lay doon ah, non du doon guitare rek. mais est-ce que fais bu ñu fi mënee jouer. Ah, ah, mais may nga doo def waaw mais actuellement nii. yow tey sooy jógee Europe doo joué. ak ay am na suma benn la naa benn CD boo xam ne bii acoustique la ak suma musicien italien yi ma. ko mhm. pour te dire quoi que bon côté boobu moom macha allah mais. Mm, bi nii ci ci cadre CD bi cadre liggéey bi ma nekk nii. Mhm. sincèrement euh, maa ngi pare maa ngi pare quelques affaires yoo xam ne yii bon peut-être ci télé yi lañ koy mën a wane. Mhm. yoo xam ne ce sera en live c'est-à-dire yi joué mais euh, neuf personnes quoi. Mm-hmm. c'est-à-dire neuf musiciens euh, yoo xam ne ñi ñoom Dembélé ñoom ñëpp ngi ci biir. Mm-hmm. Papis Konaté Aliou Seck Jules Diop ñoom Yatma ak ñoom Babacar ak xam nga ay ay ay que des professionnels. Mm-hmm. xam nga mais loolu vraiment bu may commencé moom loolu laay njëkk a débuté quoi. c'est-à-dire débuté expérience bi d'abord. après euh, dinaa la dinaa la envoyé morceau yi ma la wax noonu ci su ma CD boobu tudd L'air. ak waa leer maa ngi ko génne woon Italie mhm. euh, yaa presque boo xoolee lépp presque acoustique la album bu nice naa la ko naa leen ko jox naa leen <laughs> waxtaan bi gàtt na lool pour man sincèrement neex euh, na lool et puis gàtt na <laughs> mais j'aurais bien aimé ñu gën a gën am temps toog waxtaan bi tout ça on va le faire et incha allah ñu dañu préparer xool euh, la ñuy def seen box live ak Maïga <laughs> de toutes les façons maa ngi lay gërëm di la sant ci sa présence et puis Euh, di ne <laughs> gars euh, bu leen fàtte takk masque yi di sol masque yi. c'est très important saa su ne. et puis euh, maa di jox rendez leen di allah te yàlla bu ci kenn kenn kenn kenn manqué. incha <laughs> ma bàyyi la nga tàggoo ak auditeurs yi. Mm-hmm, mm-hmm, déjà mm-hmm. pour commencer. waaw Rose maa lay remercier bu baax. et li ma gën a bégloo mooy dama gis maa la koy répéter rek ba léegi. c'est-à-dire jëmm ji nii. daf ma marqué. Aziz dafa dafa dafa mës a bëgg lu baax mhm. yem fi mu war a yem xam boppam mhm. vraiment nekk ku yaru nekk kul mhm. bi ma gisee photom ci bi ma ko envoyé dama kontaan déjà rek yàlla ni muy jaarale ay mbiram te loolu yëpp bu woon yow xëy na dinañu gisee ci neneen damay ñëw rek day eh, mais Aziz mais kon fii nga nekkee. ma xam yàlla ma xam naa bu yàgg ni moom à partir nga envoyé ma affaire bi ma ne aw oh, mais mais Aziz ngi fii c'est bien. Mhm, xam nga donc ma la ciy remercier. Mhm. Euh, di la di la ñaanal yàlla yaa xam li nga bëgg yaa xam li nga bëgg Aziz yàlla nañu yàlla defal jàmm. defal ñu ndam ci lépp lu ñu dugg. yàlla musal ñu ci mbas mi. Euh, teggil ñu ko fi. su ko defee ñu dellu ci suñu jàmm. amiin eh, li ñu fi waxtaan yëpp nag yàlla na ci yàlla def eh, jàmm salaam sutura. ak mhm. xéewal. Mhm. Eh, ba lépp réglé wu. incha ba nga xam ne bi yoon leneen la ñuy wax. <laughs> incha allah di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. <laughs> yàlla doon njëriñ si ñëpp. may ga di la remercier si sa disponibilité.